moo tax nag këru nitu yàlla yi ak daara yu mag yi façon boobu mu ko junje biig ni kër ak lu mu rëy rëy bu dee wëli yu yi fa lañ leen di jëwe bu yàggee kër ga dana gent xam loo fa tilka buyutuhum xaawiyatum bi ma zalamu ak limu wax ni mab pass pass ba nopi tabax jak c'est tellement important pour wax la ni awlawiyat yi fay am solo lolo tax yàlla defna na ci yi mu tere la nit ci li ñoo tudde azina mu def ci ñetti daraja yu bokkul ku yàlla terale taaru yaram am na waaw المرتخ جعل لكم لباسا يواري سوآتكم وريشا بابو أمنا أمنا كمو تيرالي تيرانغ بنج bu xew amee ñu dem ca moom ñu ko amul ñu sa kër ndax këram lu ne mënees na ko fa def bu dara xewee ñu ni ko abal ñu sa oto ndax am na kàttan gu mu mën a joxe lu ñu mën a doxee soxla donc am na teraanga pénc waaye ñaari teranga yooyu dafa am teranga bu len ëpp doole te nit ñu duñ ko chercher modi di azina nafsiya حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم خمغ li ma leen ma a wax ni leen ku def dara teg ko ci digle ndax dañ ko digle te diggante yi ñu digle ak yi ñu tere amul frontière léeg-léeg nit di dugg ci yi ñu digle ba ba muy dugg ci yi ñu dina topp yi ñu tere ba bi muy dugg ci ñu digle du ko yëg looloo tax baat ba ñu leen waxoon te suñu Habib mi doon na ko fàttali keroog nit bu yeggee ci defaram defaru yu bare aju ca ak koo xam ni yàqam yàqu yu bari def ca aju te loolu moo fees sunu àdduna bi nit ku nga xam ni defaram defaru yu bari aju na ca ak koo xam ni yàqam yàqu yu bari aju na ca te ñu dund ci àdduna bu nga xam ni réerantal dafa bare